waaye e, yoon dafa am nu mu tëdde mbir su amee dañ koy gëstu saytu ko lépp li ci war ñu def ko ñi nga xame ni ñi jàpp nañ ni def nañ loo xame ni dafa jalgati yoon ñu laaj leen ñu layu ñu lay ndaxte sunu mbirum yoon dafa tëdde tëdde tëddin boo xamee ni donte am na tuuma yuy gàll sa ndodd day jaadu ñu laaj la te jàpp ni lii tuuma la rek te tuuma dañ koy dëggal yoonal ko te su boobaa nag lépp li ci war yoon dina ko def na mu ware lépp dina dañ ko teg ci yoon ñi nga xamee ni ñii lii nga xamee ni lii tey jii wax nañ ni noonu la tëddee dinañ ko saytu seytu bu leer nañ te lépp li ci war si xeetu yaru yoon si xeetu lijjanti mbir mi dinañ ko def na mu ware ak fa mu ware jërëjëf monsieur le premier ministre kon ñu tëj wax ji rekk balaa ñuy jox <coughs> suñu mbokk journaliste yi kàddu gi ku ci am loo laaj euh, wax rek nii lay lay suñu responsabilité ñun dañ ko def ba mat sëkk ba ci njëkk mooy ni ñu yore woon réew mi am na lu fi njëkk a jaar waaye ñun ñëpp gisoon ni ay tappale la wala politique la woon ñun nag lépp day tegu ci yoon moo tax léeg nga dégg ñu ñi ne mbir mi dafa yéex dara yéexul yoon dafa am lu muy doxe waaye képp koo xam ne ci anam yii ak yeneen anam ndax wax naa leen ni lu bari ci xaalisu réew bi dañ koo randal ñoo ngi ko jaarale ci suuf si ñoo ngi ko jaarale ci lémpo gi ñoo ngi ko jaarale ci euh, certificat nominatif d'obligation yi ñoo ngi ko jaarale ci rachat de créance yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne seeni pexe ak fi ñu ko jaarale xam nañ ko liggéey bi ñuy def nag day ànd ak tey ak dal waaye askan wi na xelam dal ni ñi leen teg lii dinañu la yokk moom ñaareelu pàcc bi muy lu am solo mooy gannaaw bu ñu waxee askan wi dëkk parce que dëgg gi ñu wax nag dafa am lu mu mën a àndal ak conséquence ndax lu bari si ñi ñu doon jëflanteel ci bitim réew te ñu wóolu woon Sénégal tax ñu jël seen koppar di ko fi joxe mën nañu dégg lii mu tiital leen mu tiital leen ñenn ñi ci ñoom ñi gën a mag lu mel ni Fonds monétaire ak Banque mondiale waxtaan nañ ak ñoom ci waxtaan bu xóot léegi ministre wax na ko rafetu nañu taxawaay bi ak ak jëfin ji donte li ñu dégg tiital na leen tuuti waaye rafetu nañ ko li ñuy wax effort de transparence bi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye def wax nañ ñu it ni dinañu ànd ak ñun ci mesure corrective yi nga xam ne faw mu am jox ñu it seeni xalaat ci yu bëree bëree bëree bëri kon la ca des mooy askan bi parce que man dama musuta gëm ni lay defar réew mi day jóge ci biti mësuma koo gëm loolu ndollent la rek waaye dangay def li nga war a def ba noppi lépp li nga war a dajale ci biir te réew mu ne nag yàlla def na fa li war a tabax réew moo tax su ñuy wax saytuwaat yenn contrat yi convention yi ci loolu la jub jublu bu ñuy wax ni askan wi sopp nañu képp kuy situwaaye mu xam ni lempo gi muy fay mooy tabax yoon mooy tabax hôpital waaye loolu du jóge ci ci poosu Basiru Joomaay Fay ci ci loolu lay dugg suñu nee yenn yi nga xam ne yombal gu ëpp la woon nuñ koy xoolee ba gérer ko ci loolu la dugg waaye suñu nee nguur gi ci boppam ni mu doon dundee yàq gi bëri na ci dégg naa bi ñu waxee ni yenn yi nga xam ne lu ëpp la ci li ñuy utiliser nañ ko wàññi ñenn ñi naan loolu ay détails la ñàkk xam la boo demoon États-Unis wala nga dem France wala feneen ak feneen ñooñu ëpp alal foofu te lii ma wax nii noonu la seeni service di doxee. kon la ñuy xaar ci askan bi moom it mooy mu takku ndax am na njiit yi mu war a am de ma waxaat ko fii léegi bàkk président Bassirou Diomaye Faye parce que bi ñu gisee lii bi ñu defee liggéey ba pare gis ko daje nañu moom ministre de l'économie ngi fi woon moom secrétaire général mu nga fi ministre des finances nga fi yenn directeur généraux des régimes financiers ñu nga fi ñu ne ah li ñu gis te doy na waar te buñ ko waxee mën na jur lii ak lii ak lii ci safaan ba moo am sax ñu xalaatoon ni te ñu ko nëpp nëppal tuuti waaye président dafa ne du ma mus a sama askan xam lii nëbb ko mooy fenn nañu askan wi te bu ñu fenee askan wi la des ci mandat bi yëpp dañuy obligé di continuer fenn te man duma doxalee noonu kon dañuy wax mbir mi luñ ci góobe garba bu dee ñi ñuy jëflanteel ci bitim réew loolu tax nañu tiit wala ñenn ci ñoom ba xaw banque seen loxo ñu xam ni noonu la demee daal di takkaat suñ digg defaru la ñu waroon uti feneen ñu essayé ko liggéey fii mais loolu day supposé sénégalais bu nekk comprendre enjeu yi xam ni am na njiit mu soxla maa ngi koy wax fii ci mbandaa bi sàcc ak détourné du fi am wala ku ko defit sa place ñëpp xam nañ ko jël loo moomut du fi am orienté mbir yi ci lu dul farata du fi am te kuñ fi tabb dinga liggéey ba mënatoo kon loolu rek la askan di xaar ci ay njiitam waaye njiit ñi la lañuy xaar ci askan wi mooy suñ leen woowee ñu wuy si ko ñaar yooyu bu dajee rek ci diir bu gàtt gàtt gàtt dinañ soppi suñu réew ba nit ñi jaaxle kon loolu lu mën a ne la lii ñu wax ni tekkiwul ni dañoo nekk ci njaqare wala défaitisme déedéet dañoo bëgg rek ñun ñu yëpp ñu bokk xam ni fii la ñu doore te fële la ñu bëgg a jëm te bu soobee yàlla le 7 bu ñu leen présenté vision 2050 nga xam ne ci vingt ans la yéen ñëpp di ngeen xam fi ñu bëgg a jëm ak naka lañu fay jëmee kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant euh, di wax ni. bisu tey dafa war a nekk un tournant dama bëgg sénégalais bu ne sentir ko jël résolution ci boppam ne bis ni ki tey manit ci li ma warloog sama réew dina doon un tournant mystification jeex ci réew bi dañ doon wax ay homme politique naan c'est un homme d'expérience expérience bi yëpp mi ngi nii c'est un homme d'état homme d'état bi yëpp mi ngi nii réew tappale ak wax lu dëgg ak randal réew mi du ko defar kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di bàyyi euh, soxna si mu joxe kàddu gi jërëjëf. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres. Donc, chers euh, confrères, euh, chers consoeurs de la presse, nous allons prendre quelques questions et pour des soucis d'efficacité, il sera impossible de donner la parole à chaque journaliste. Mais nous allons essayer d'avoir un échantillon assez représentatif des différents organes présents. Et donc, nous proposons cinq questions. Une pour la presse publique, une pour la presse privée, une question pour la presse internationale.